sur la sur la am na nga ne trois mois c'est trop peu mais trois mois on suffit pour que ñu comprendre par exemple que euh, li ngeen promettroon sur les appels à candidature concernant certains postes euh, mënatoo leen ko def. non euh, li fi des ci direction motul cinq. et ce mm. sont des miettes. ak sur la dette. déedéet euh, d' accord ma dama bëgg benn par benn rek moo tontu <laughs> euh, benn bi d' accord nañ ni. Ah. Euh, affaire militaire yi. loolu mën naa la ko conseiller. waaw et ñu bàyyi président ci boppam. Mm-hmm. walla ñu ko yelloo mën ci tontu. ci mbirum det yi bëgg naa lool nga xool tamit li fi gaayale bàyyi. ak situation boo xam ni moment bi ñuy arriver Euh, da ngay may président de la république ak gouvernement bi ñu dérouler donc suñu programme jëlaguñu sax suñu budget maanaam DPG sax demaguñu présenter suñu budget kon kenn mënul wax waxu dette ak nos rapport à la dette je pense que loo ci wax rek da ngay tooñ président da ngay tooñ. mais yéen dem lépp. non moom non moom la euh, déedéet déedéet déedéet. Ah. kan moo leb. Euh, kudul yéen. waaw may ma rek c'est-à-dire que euh, am na loo xam ne fekk nañ ko fi am situation boo xam ni bàyyi nañu ko fi te euh, piège bu nekk teg nañ ko pour simplement jox ay difficultés indi ay difficultés au gouvernement ak chef de l'État. kon piège nga ko jàppee. dama jàpp daa am yoo xam ne des fois sax day nuroog sabotage. ah te waaw ah day nuroog sabotage yenn saa yi am yoo xam ne nga xam ne da ngay dem. ngay jël yenn motuwaay ngay jël yenn dogal ngay jël def yenn engagement et cetera teg situation bu mel noonu am na loo xam ne xëy na moom nga yaakaaroon ni situation difficile boobu ou complication boobu bëggoon nga mu yàqal ñi lay doon noonu donc loolu dañ ko fekk moo tax sa appréciation dina nos rapports à la dette à la question de la dette nos rapports à la question donc de la la, la gestion des finances publiques je pense que man dama lay jox rendez-vous nga bàyyi ba ñu. prochain budget. prochain budget ñu def suñu déclaration de politique générale bu boobaa di nga am ay éléments d'appréciation pour xam dëgg dëgg dëgg quelle est la politique générale. donc pour le moment ñu gëmm bët ci seen. eurobond 450 millions bi. avec un délai de maturité très long et un taux très élevé. donc ñu gëmm ci loolu. Euh, su la neexee nga bañ ci gëmm mais li ma la ba mën nga sax. xippi xippil bu baax nga xool gis nga gis nga loolu nga jël jëli foofu. Euh. Euh, lu ci ëpp. pour financer des dépenses courantes nag en euh, plus. déedéet pour financer des dépenses courantes déedéet déedéet ah. li ci ëpp mille et quelques ci ci li ñu àbb maanaam les les cinquante pour cent je hmm. cinquante ou pour cent xam nga pour lan la. Hmm. pour fay ay bor. Hmm. donc àbb pour fay ay bor. c'est encore pire. non c'est encore pire. c'est encore pire ouais, mais mais situation bu doy waar. ngeen def rééchelonnement. Euh, euh, ngeen renégocier. Euh, ci la ci la ñu nekk ba tax na lu bëri tey ji ñu ngi koy dund waroon ko def duñ ko defagum ndax simplement bàyyi ba président de la République le premier ministre ñoo présenté au peuple sénégalais. politique générale am ak ni ñu koy décliner. la ngeen renoncer à à des taxes comme ni ngeen ko defee euh, avec la tax taxe parafiscale sur le ciment pour financer la la baisse des denrées ngeen. Euh, euh, ngeen renoncer à 53 milliards. plutôt que d'aller vous endetter pour payer des dettes. soo am na loo xam ni ma ne la sabotage bi am ak situation boo xam ni gars yi bàyyi nañ ko fii. soo nekkoon ci biir di nga xam ni c'est extraordinaire dafa dañu xamoon ni ñoom dañu doon dem ba tax na euh, mbirum eurobond yi li tax ñu koy xeex te dañ ko war a xeex te soo dégloo tamit président la république déglu premier ministre bu baax a baax a baax a baax mooy dañu bëgg a encourager suñu secteur privé comme yenn réew ni ñu koy defee mooy ci espace UEMOA nga dooleel say nit pour que suñu épargne Euh, xaw ma ndax seetlu nga d'ailleurs sa yu amee euh, benn ay ay possibilité euh, de de de de de mobiliser l'épargne pour financer donc yenn. notre économie yenn sunu économie. est-ce que xam nga ni réew mi de plus en plus dans la sous-région gars yaa ngi commencé di ñëw di jàppale mbir bi di jël seen épargne di ko dugal wante ñun suñu secteur privé. néew na doole joo xam ne xëy na des na ba léegi te président la république dafa bëgg souveraineté boobu ñun ñu mën ci dox ay jéego yu am solo te euh, soo doolelee sa secteur privé ba ñu am yenn kàttan yi ak pétrole bi ñu am gaz bi ñu am suñu góorgóorloo tuuti ba am yenn puissance yi def naa ne ndànk dànk balaa ngay dem àbbi feneen sa secteur privé moo lay ab abal bu boobaa di nga gagner en souveraineté moom mooy logique bi mooy démarche bi mais loolu da nga koy tabax da nga koy tabax donc soo bëggee renoncer am sa souveraineté am na loo xam ne danga koy tabax te dinañ ci egg euh, may leen rek simplement le premier ministre gouvernement bi ñu présenter seen politique générale ak ni ñu ko gisee di ci gis ni fulla ak fayda bi ak souveraineté bi ñuy wax dina am di nga gis ni ni ñu daan àbbee di lor suñu économie di ko teg ci ay situation xam ni comme tu disais tout à l'heure ngay ab di fay bor suul bukki sulli bukki loolu dafa war a jeex te euh, lii premier ministre waxoon lii président waxoon mu nekkoon suñu programme tey la lu gën ay il n'est pas du tout question di continuer ci logique eurobond yi il n'est question di continuer ci logique endettement bi il est question de gagner en souveraineté te loolu dañ koy tabax encore une fois sa agriculture da nga ko war a jox doole waxoon nañ ci sànq sa industrie da ko war a jox doole kenn ku nekk ci ministre yooyu mi ngi nekk di développer tout une politique boo xam ne defe naa suñ ko tegee di nga kontaan par rapport à la question de l'endettement di nga kontaan par rapport à la question donc des eurobonds mais encore une fois ngir yàlla mais ñu simplement ku nekk mën a ñëw présenter surtout le premier ministre mu ñëw mën a présenter donc. donc euh,